Malika Mbolo maa ngi ñaan tuuti na ah eh booy ñaan tuuti tey nga daanu ah boo def nang booy ñaan xayta booy ñaan xayta songoon nañu ndeysaan xayta moo nekk jëf sooga ne oh ah, door na ko daanu oh la la na ko mu daanu ndeysaan xayta moo nekk jëf sooga ne oh ah, door na ko daanu.